Euh, mon frère ñoo ngi leen maa leen fay. Euh, fan yi réew mi coowam la lëmbi muy coow Mamadou Diagne Fada gis nañ ni ko wàcc na suñu la scène politique xam en tant que opposition yow nag ngeen ko jàngate ah man daal ka Mamadou Diagne Fada bi man personnellement sax en tant que sitoyen man dafa ma xaw a inquiète daf ma xaw a parce que ñàngat bi ma si am mooy xam nga on peut tout soutenir sauf l'inconséquence maanaam dans la vie féetal koi il doit prendre ses dispositions. mu génn PDS wala mu toog PDS def na li mu def ba pare créé na dem na ba créer son parti ñu jël see clics et ses bagages ses claques mu dem xam nga battre campagne jéem a xool leen lu muy def te mu bàyyi PDS stabilité mu am. Modou Diagne Fada dama jàpp ne c'est un homme politique buñ ko buntu xataalee au niveau de son parti qui le PDS buñ ko buntu xataalee foofu am na droit créer parti mais également am na droit en tant que jeune. laajte sénégalais yi seen euh, en tout cas seen ànd ci loolu ndax ëllëg mu nekk président wala nekk leneen man daal ànd naa ci en tant que jeune nag c'est pas parce que maag Modou Diagne Fada ñoo bokk parti wala déet man APR laa nekk comprendre mais dama koy féliciter ndax li mu def parce que tout le monde seek que Modou Diagne Fada dafa rayante au niveau du PDS depuis très longtemps mu ñëw fii gars yi buntu xatal ko mu génn gars yi buntu xatal ko mu génn courage boobu rek man dama koy saluer. man li muy def mooy félicité Modou Diagne Fada si acte courageux bu mu def parce que tey ñun ñëpp xam nañu au sein des politique politiques démocratie dafa manqué bu baax maintenant bu ñu amee ay jeunes yoo xamante comme genre Modou Diagne Fada di jóge si parti boo xamante ne bu tudd PDS surtout di créer parti yam pour vraiment prétendre être président de la République lool ñun en tant que jeune dañ ko war dañ dañ koy féliciter sincèrement parce que c'est un acte très courageux. bu génnee est que yoon may na ko mu yore li nga xam moom mooy groupe parlementaire libéraux yi est-ce que yoon may na bon euh, ñenn ñi dañuy naan yoon mayu ko ñenn ñi naan yoon may nañ ko may na ko mais man dama jàpp ne tey jii loi baa ngi foofu noonu bu fa desee c'est parce que moom moo am dëgg bu amul woon dëgg en réalité du fa des. parce que le président de l'Assemblée nationale ak ñeneen ak ñeneen xam nañ loi bi lu muy wax donc bu fa desee rek c'est parce que aujourd'hui moom moo am dëgg bu amul woon dëgg du fa des. loolu mënul nekk juridiquement loolu mënul nekk mënatul mënatul nekk nekkatul PDS bëgg a nekk ci kaw ci kaw PDS. mënatul nekk na jël décision am génn ba pare na génn bàyyi lépp li nga xam ne PDS moom moo ko oom mu daat koy bàyyi mu dëggal boppam bu fekkee doole ji mu yaakaar am na ko mu dëggal boppam euh, euh, daal di fësal boppam comme comme opposant Euh, bon man man man gisee gisee wu ma noonu tout simplement parce que aussi bu ñu fàtte ne au niveau de l' assemblée nationale ay députés ñoo fa ne sont des députés du peuple ce ne sont pas des députés de parti politique. c' vrai que nit ki bu ñu lay investir si base parti euh, si base parti politique euh, lañu lay investir c' est vrai mais aujourd'hui moo di Modou Diagne Fada bu fekkoon ne amul population bu croire à amul population bu muy représenté yaakaar naa dañ ko investir donc suñ ko investir population moo tax ñu investir ko mu jóge PDS warul tax. mu jóge si parti mu jóge mu perdre mandaam député parce que peuple bi fa nekkal nekkul fa waa PDS. Euh, mais jàpp ngeen ni que am na avenir euh, xam en tant que jeune bi soog a dugg ci opposition. man jàpp naa ne am na avenir d'autant plus que am na base parce que en politique on nous dit que boo amee base am nga départ moom déjà fi mu dëkk il a toujours battu il a toujours battu il est le président du conseil départemental de Kébémer ce qui veut dire que le département de Kébémer am na fa doole waxatuma laag nag fi mu dëkk mooy Daaru Musti euh, nul ne sait de quoi demain sera fait na gëm boppam liggéey mais man personnellement je ne pense pas que politiquement am na avenir je ne le pense pas parce que politiquement amagul amagul ce qu'on appelle un groupe te équipe dafa am solo si loo gis PDS une équipe la am. mais gis na que bi muy dem responsable PDS yu bëri topp nañ ko. Euh, ça c'est vrai ñu bëri topp nañ ko mais à mon humble avis. et PDS ba tey certes am na ay divergence yu bëri am na lu mu yóbbaale mais la ëpp su solo ba tey mu ngi fa. comme ni wax man je suis au pouvoir je suis de l'APR je suis le coordonnateur des étudiants républicains du département de Matam donc man li may wax rek tey yaakaar moom ci moom surtout mooy tey le président a fait un appel. appel bi mooy lan tey képp koo xamante ne c'est un citoyen sénégalais képp koo xamante ne acteur développement nga nekk politique tey il a mis en place def na si en place un euh, un programme qui s'appelle PSE e. tey dafa woote ñëpp ñu ñëw jàppandoo ñu def benn loxo pour mun a yëmale affaire bi kanam man si attente appel boobu laa koy xaar mu ñëw mu nekk ak président pour travailler pour le Sénégal. ñu liggéey loolu rek laa.